Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net ahousu billahi mina sheytaani rajimi bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi nuyu mboolem kuy jàkkaarloog sama jëmm ji seen mbokkum taalibe la Serigne Saliou Mbaye di taalibe Serigne Saliou Mbacké ñu di ko wax Serigne Saliou borom jurul ma génnoon nag doon soññewaat ak doon waxtaanaat ak sama mbokki talib yi mbokk yi nga xam si ni yàlla daa dogal muy mboole moo xam si ni sama jëmm ju xeebu ji ju lott ju matadi ji rek la yàlla jël teg ci seen kanam ma jiite leen ma di leen soññaat ci màggal gii nga xam ne moom lañ dëgmal ci noonu ñu ko daan ànd ci at yi yëpp ñu weesu ànd mi nag weesuwul ñu fas yéene rek mbooleem foo xam daan nañ fa dem daan fa samp wàññ Euh, maa ngi koy feddliwaat mbokku talib bi yëpp ñu xam ne nañ ko daan defee noonu rek lañ ko fas yéene defee ci kàttanu yàlla mu doon loo xam si ni defin bi daanaka boo seetloo diirub lu toll ci juróom-ñeenti at ma taxawal mouvement bu ñuy wax mouvement réew mi ñu amub seetlu ndeysaan ci sancaan yi ak ñi nga xam dëkk-dëkkaan yi sore yi ñeemantal guñ doon am ci ñoom ngir baagante guñ daan baagante daan ñëw ci biir dëkk bi ñu daan tibbi ñam di leen ko defal ci ndab ndab yi ñu leen ko daan defal nag daa doonoon ndab yoo xam ne ay ndab yi Euh, kawsu la ndeysaan mooy seen siwo yooyu ñu yor ñu seetlu ñam weeg tàngaay yi bala ñooy egg seen kër yi xataayu dëkk bi euh, su ndab lañ koy yor day soppi togg ko ba dootuñ ko mën a jëfandikoo wala buñ ko jëfandikoo mën na leen a indil tuuti ci lu dul ci lu safaanoon yooyu nag ba demee na ba def ciy gëstu moo waral la ñu jël waañ yëpp foo ci nekk ñu samp fa waañ euh, ngir jige leen ngir jàppandal gu ñuy bëgg ci ñam yi nga xam moom la ñuy bëgg ñu di ci mën a jot te jëm yàlla rek tax loolu moo waral. ñuy ñuy samp ay waañ ci sancaan yi ak ci dëkk dëkkaan yi noonu ñu ko daan amalee nag ren jii dañoo bëgg defe ko ci anam bu mucc ayib ci kàttanu yàlla ñu fas yéene ko ànd ak mbooleem foo xam ne am naa fa jëriñ joo xam ni yàlla dogal na yaa ngi boot ci ñuy ànd di liggéey liggéey bi nga xam moom la ñuy def te jëm yàlla rek tax ndax euh, ñu ngi ko lii euh, li tax ñu di ci nàmp tallu ñu di ci nap na bi mooy yaroo gi ñu yaroo ci keppaaru Serigne Saliou Mbacke man daanaka sama lépp Serigne Saliou la amul daanaka sax sama lépp Serigne Saliou la ndax koo xam ne ci juróom mi at lañ la ko jox ba ba ba ba ba ngay dem a ba ba ngay dem ci moom attunoo libre suukar nga dem a ba ba ñu la yenee cent kilos nga mën a daw ak moom daanaka lépp lépp looy looy lu ñuy xool ci nit rek naan naan nitu ko def ci sama jëmm ji Serigne yu Mbacké la ba tax na mënuñu ñu def lan lu dul euh, di nab nabbi ci luñ xalaat ne luñ mën a jàmmoo yàlla ci jaamu yàlla yi lañu ñu di ko def te jëm yàlla rek tax ndaxte nit koo xam ni euh, bërëb ba nga yaroo sëriñ Saliou lu mat fukki junni dong saa yu xëyee mu di leen joxuk dund muy la ñuy lekk la ñuy naan nga xam si ni ci lu toll ci ñeent tonn ceeb wala lu ko ëpp lay xëy di dépensé par bis ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci lu bokkut ak kër Serigne Touba yi nga xam si ni jabaru Serigne Touba yi nga xam ne ñoom ñëpp moo leen boole woon moo leen boole woon uuf ak ñi nga xam si ay magitaale bilam yoo xam Serigne bi yoroon seen njël muy seen añ seen reer seen ndékki kookee boo yaroo ci keppaaram boo ci jugee donte mënoo yu mel noonu yi da nga fexee na nabi nag góor góorgóorlu di def topp ca wati bi rek ngir maanaa euh, waxtu wu nekk lam doon wax ni di leen fexe ba ndimbal yi ngeen di def di leen ko jox ñi nga xam mooy ñi ko yelloo te bañ ci am xaj ak seen moo tax amuñ ci xej amuñ ci seen maanaa kuñ xalaat ne rek aaji woo nga xéwal yi nga xam yàlla mi ngi koy jaarale suñu jëmm ji danaan la fekk fa nga nekk jox la ko te jëmmi yàlla rek a tax wallahi naasim lii rek mooy mooy suñuy naal ba tax na màggagu ren gi fas yéene nañ cee daal def lu kawe kawe kawe Serigne Moustapha Gueye moo ko maam Alassane ak Serigne Sall ak gaa yooyu ñoom laa jëwal yooyu ak ba ci yi ñoom lañ fas yéene àndal ku ci nekk ñu samp ñu sampal la waañ ci bërëb ci nañ ko daan defee ñu ànd te jëmbi yàlla rek a tax fas yéene ko màggal na màggal goo xam si ni yàlla na méngoog bëggug sëriñ bi waaw yàlla na méngoog bëggam ñaareel bay li waral ñuy génn di fesal jëf yeeg ndoxit bi mooy am na jëf joo xam ba ma koy def lu jiitu nga xam ne man rek maa ci daan nekk daan wuti nit ku ci ne man la demal ma ci bërëb nangam ku ci ne man la demal ma ci bërëb nangam dootul loo xam ne da ngay dema dem ba mbooloo wuy la mbooloo moo xam daanaka lu ëpp daanaka juróom-ñetti junni nit mbala lu ko ëpp ñoo xam si ku ci nekk saa yu xëyee wala lu toll ci ay million ci ay doomu aadama di la déglu ak di la bàyyi xel te lépp loo xam yaa nga cee woote ñu di ko ànd ak yow day yell la ngay jëf ak na ngay doxee nga di ko feeñal ba ñoom ñëpp ñu man di gis ni kat jëf ji kat mi ngi nii ci lii la tënku ci lii rek la nekk loolu rek a waral doxin bi ndaxte sëriñ bi danaan wax ne maanaam doomu aadama yi leen bàyyi xel bu fekkee dañ laa jiital ngay toog ci kaw ñuy toog ci suuf banque seeni tànk dane li banku tànk nag banku lum xel ba lool moo lay jural booy wax ak ñoom na nga xam ne loo leen wax ba daaneel la nga waxagul lañ gën a xam ci li nga leen di wax kon nit ñi booy ànd ak ñoom fexeel ba jàpp leen ni sa bopp te ko ci jàngal ko rek nga jàpp ko nga nga jàpp nga jël jëmmam yi jàppe ko ne si jëmm te xam ne jiitoo la jiite jiitewoo leen ngir ëpp leen xam-xam bàlle waaye da nga leen a jiite te jëmm yàlla rek tax leneen la ca doole ko sëriñ Abdourahmane Mbacke dane woon ñett yi li li muy baax baax baax muy am xarum tabaski am soow ab góom nee na ñett yi lu ci nekk lañ ciy séntu ci nit la gën nee na xarum tabaski mat ak lañ ciy séntu te nee na mat li muy baax baax ci nit la gën nit góo ak wér te nee na wér lañ ciy séntu séntu ci nit la gën daane am soow ak way ak way li liñ ciy seen séntu ci soow ci doomu aadama la gën sëriñ Abdul Ahad waxoon lii euh, amen nag loo xam danaa ko baaxee waat mbokk talibe di leen ko soññe ngir ngeen bañ a tàyyi mukk ci di def lu baax ndaxte euh, dafa am ku ne woon jigéen ju bon de loo ko defal ci lu baax nee na bu demee ba toog sa ba lay waxal li la war te ko rek lay wax man nag mën leen lool doomu aadama la nitam mel noonu mata di doomu aadama moo yóbbi nit ci loolu yi ba mooy waral loo ko mën di defal ci lu baax lu baax loolu lu bu toogee bay wax du wax mukk ci la ko defal ci li la war te dëggoo ko rek lay wax waaye loolu bu mu la teree def lu baax yow nekkal ci la la war rek mooy li nga xam jàpp nga ne lu baax la te yàlla rek a tax nga di ko def ndax jëf jooyu def te yàlla tax bul ci sant mukk fay doomu aadama ndax mbirum sama borom wala wala nga am loo sax ba mu jaral la nga naan da ngay jug di ko jéem a fajal bàyyi rek yàlla fajalal ndax suñ boroom saa yu jógee ngir fajalal la mbir boo tàbbalee sa loxo rek mu rocci loxoom te yàlla moom fu mu rocci loxoom dara dootu fa des kon nañ bàyyi suñu bopp ak yàlla tey ñu fexe ba góorlu ci di jëf-jëf joo xam ne dañ koy jëf te jëm yàlla rek tax fàggu nañu ay mbubb ay yére yu bari yoo xam dañ ko fas yéene joxe te jëm yàlla rek tax mu ci daara euh, ak ci suñu mbokki soxna yi jigéen ñi ndeysaan sa bàjjen yi ñoom wutal nañ leen ay koddaay yu rafet muy ay gesner yoo xam ne ñu ngi ko ànd ak mbokk talibi yu baree bari ñu defe ko defin koo xam si ni man ci sama bopp sax man mii nga xam si ni yàlla dogal na jëf ci dañ koy indi ci sama jëm day dema dem ba daf muy yéem wallahi azim day day day kara ci man ndax yéen a jiñ ci defe ak defin bi ni muy rafete ba tax daal maa ngi maa ngi fàttaliwaat maa ngi soññaat ñëpp daal ci liggéey bi tey liggéey bi ku ci bëgg a tàbbit te mën ngaa ñëw ñu ànd ko te jëm yàlla rek tax sama mata bi gii nag ak sama xeebu gi ak sama doyee di gii laay ñaan nit ñi bu ma bu ma bu bu bu kenn xool sama jëmb ci ndax daanaka ku xool ci man rek gis ci man loo may xeebe wala ak mata bi waaye damaa bëgg ñu ànd te jëm yàlla rek tax ndax kenn matul waaye buñ àndee ku la manqué sa morom man nga koo digal di ko mottali te jëm yàlla rek tax daa am benn waaye dafa ñëwoon di ma wan di ma di ma di ma wan am njàng mu xóot naan ma yàlla yàlla yàlla yàlla nangam nangam nangam lu ne ma ne ko waaye yàlla day matam gi lépp li muy li muy mat mat mat am na loo xam suñ borom amu yàlla manqué rek laa bëgg nga wax ma yàlla yàlla yàlla mu manqué liwul dara yàllaay borom lépp man ne ko déet yàlla am na lu mu amul. mu ne ma lan dama ne ko yàlla amul ndey te amul baay kon yow sa xam-xam daa des maanaam xam-xam mi ngi ciy téere waaye am na ci loo xam ndimbalul yàlla yàllaa koy dimbale doomu waaye lépp rek sant yàlla rek jublu ma ci nag ni yàlla daa tële dara wala daa manqué la dara waaye loolu dama ko ko doon wax rek da ci waxtaana indi woon loola ba ma duggoon ci loola li ma jublu mooy pour ñun doomu aadama yi ku ci nekk rek nga fexe ba eh, li nga xam si ni moom nga attana xool ci di ko wax ca moom xoolal ci sa bopp rek yow sikki yi ci yow ak matadi gi ci yow nga jiima xool nan nga mën a fexee yooyu nan nga mën a fexee ba defar ko da da na la doy sëkk rek it loolu lay soññ mboolem taalibe bi waxam yàlla dogal na ñu ngi ànd. xam nga ñu baree baree bare dañuy def léeg dañuy gis sama biir waxtaan ma ci tudd Serigne yu Mbacké lu bari man dama amul tudd Serigne yu Mbacké man bi ma amee juróomi at lañ ma jox Serigne Saliou Mbacké mu ne sama bàyyi na ko yóbbu ba mu amaat ba mu takki ñaari at ma juróom ñaari ma ñëw ci Serigne Saliou mu yoral ma boppam moo ma defal lépp moo ma jàngal defal ma lépp li ci man lépp Serigne Saliou Mbacké ko def ci man ba li nekk sama jëmm ji te mënu ma ko wax kenn Serigne Saliou boo ko def sama juru góor bi mu ñëwee jébbalu ci Serigne Abdou Lahad Mbacké Serigne Abdou Lahad dana ko yow dama mën a jël seen jébbal ni tekk ba mu yàgg mu ne El Hadj Cheikh Samb maam àndal ni ko seex mu ne ko Mbacké mu ne ko moom mii de xool naa mbiram waaye Serigne Saliou Mbacké rek ko ko attan ni ko yóbbu ko ci Serigne Saliou sans bàyyi ñëw Serigne Saliou Mbacké jébbalu ci moom daal di Serigne Saliou ma bi ko sëriñ bi mu jébbaloo ba ni ko nangul naa la suñu jébbal dana ko mën ne Mbàkke damay def njaboot bu góor ñi ma ci am daa néew te fi ne may def lu ma ci am day dellu ma bëggoon Mbàkke nga ñaanal ma ma am ma amoon njaboot bu góor mu ne ko yàlla na ci dajeeg ndimbalu sama borom mu jóg ni ko bëgg naa Mbàkke nga ñaanal lu ma ci am doona ma tuddale ko mu ko na ci dajeeg ndimbalu sama borom sama bàyyi tudd sëriñ Saliou Mbàkke fukki doom ak ñeent man mi ci laa bokk yàlla def tawfeex du toll ni loolu yi bu amee ci sama kër way juru góor sama way jur dama dem ba sëriñ Saliou Mbàkke ne ko yow sa lépp man la kon koo kii bu yàlla dogalee ma ma ma bokk ci ay meññeefam mu tudd ma Serigne Saliou yàlla defal ma tawféex ma bokk ci ndongoy Serigne Saliou Mbacke yi mu jéggi Serigne Saliou Mbacke ci kaw suuf ci loo dafa am ay seere Serigne Saliou bokk naa ci ñi mujjee jëfloo ci kaw suuf jëfloo gëm ma jëfloo weesul jànguloo ma jàngul xasida ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi bari yoo xam kenn mënu koo nettal loolu tawféex la ci man ba tax na moom moo waral fépp foo xam si mbokkum taali bi ma nga fa ndaxte nit ñi léeg-léeg lu baax rek lañ bëgg waaye mën nañoo umpale mbir sax ba tax yenn yi di am waaye maa ngi tuubal ñëpp tey santaat ñëpp daal jërë ngeen jëfat am na màggal ko ndeysaan sama benn wëlëre day jaay ci restaurant ma ñëw ci alal jox ko mu ne ma nañ ànd ñu liggéey ci res ci ci màggal gi bu màggal gi jàllee ñu xool li am ñu seddoo ma jox koy koppar yu bari mu dem ndeysaan ndugg ñu sëf ko ci camion indi ba wàcce ko ba ñu ginnaaw suba a màggal ma ñëw toog daan ne ma gis nañ ni ñëwee day sàmm ak rëb-rëb bi doomu aadama yi ma xam ne ñii lu baax rekk leen tax a jóg ma ne ko man daal damaa xalaat leneen lu bokkut ak liñ xalaatoon ma ne ma daal ma ne ko nañ sarsawaat ndugg mi yëpp ganaar yaag ndawal gën jël nag lépp ma sarsawaat ko ñiy wër ci sancaan yi joxe lépp ba mu jeex ma ne ko nañ ko jaay suñ tubaa am nañ njëkk màggal ga jàll wallahi alazim ay xéewal yu baree baree bare dikkali ma ci yoo xam si ni dama doon ñaanaat màggal ga xëy tey moo tax loolee du ma ci jug mukk lépp lu ma yor ba màggal suñ tubaa ñëw compte bu ma mën di yor bu màggal suñ tubaa ko ci màggal bi ci bëccëgu gi ma waajaat jëmale demeen ci kàttanu yàlla loolu yi rek mu daanaka léeg-léeg ma sax naan loo xam ci màggal suñ laa ko jëmee jàkkaarlu ni di ko ñaan di ko di ko ko laaj dara ni ko lii de laa bëgg si waaye nga taxawal ma te fekk na bu ma ne woon diis rek mën na maa làmb ci loolee def ci waaye dama ko jombale sama bopp te du ma lekk mukk addiyee joo xam si ni wala alal joo xam nit ki da koo jël di ma ko jox ngir ma war koo def ci jàmm yàlla yi dina mukk ci sama biir loolu daf maa araam te lépp loo xam naa ko maa ngi yàlla bokk doomu aadama lépp lu nit di di ko jaareel sama loxo bii dañ fas yéene koo def ci liggéeyal yàlla bii nga xam moom laa woote danañ la ko ca defal te danañ la wan ni leen fii lañ ko def te jëm yàlla rek a tax bari na nit ñoo xam alal ju takk la ñuy yëkkati dama ko jox waaye amu ci benn dërëm boo xam ne danaa ko jëmale ci sama kër wala ma di ko jëmale ci sama poche fa ma koy jëmee mooy dig-dig ba nga xam ak joxoñ ba ma leen joxoñ moo ci jaamu yàlla rek lañ koy defaat tamit ñu koy tuwoo wallahi masin noonu rek laa fas yéene ànd ak maa ngi baalu ak ñëpp maa ngi tuubal ñëpp tey jégul ñëpp di talal sama loxo ñëpp képp koo xam si ni yaa ngi yaakaar ne man Saliou maa ngi am lenn loo xam si ni def naa ko mu def safaan bu ma la def te yëguma ko maa ngi la koy jégul man nag jéggal naa ñëpp topp ma kenn dara ndax damaa xam ne matadi gi ci man comme jàpp te bàyyiwu la man ngaa mënoo mënoo mënoo mën ngaa sax ci di juum loolu rek a tax maa ngi baalu àq ñëpp tey ñaan yàlla boo leen dimbalil boppam ci mag ngaa tedd nga am nga ci barke alxuraanu karim mbubb yi nga xam ne moom lañ fas yéene séddale ci daara yi ñu ngi ko fas yéene ànd ak jëwrin yëpp yi nga xam si ne ñu ngi bootu ci suñ ginnaaw ñu fas yéene ànd liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaw maa ngi sant nag booleem sama xarit yëpp tarixa ci Sénégal yëpp fu ma ci am wëllëre ku sama wëllëre yëpp moom góor jigéen fu sama soppe nekk rek ak fukk taalib bi nekk maa ngi lay sant te di la gërëm tey ñaan suñu borom gën a yàggal suñu ànd bi ndax nag adduna daa ñàkk solo adduna dafa ñàkk solo wallahi lancim adduna day lu ñàkk ñàkk ñàkk solo waaw adduna day ñàkk ñàkk solo ba tax na daal yàlla nañu yàlla doole defal dégg topp am na ci yoo xam si ni daanaka liggéey yi ñu sëmb ñu sumb moo ñu yóbbu ci daanaka yi baree bare bari mooy ay waxtaan mënaguma cee xuus li ci waxtaan waaye buy jàllee danañ ci gën a def ay yaatal yu baree bare bari te jëm yàlla rek a tax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi sant ñëpp nag fu waay nekk rek maa ngi lay sant mbub mi ma sol Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Salim Mbacke moom ma ko jox. day sant nii lay def moom daanaka day jëli bu barkeelu yu bare bare bi ma ko jox ba tax na moom it ñu ngi ko ci sant di ko seeraloo waa adduna te mboolem ñi mu bokkal Serigne Touba te ñii samay wëlëre noonu rek la ñuy àndal man ndax moom nee na ma comme que yaay wër yi. ak ñi nga xam se ni seen i loxo jotul seen ginnaaw yow mi koy jëf te ma waroon ko di ànd ak yow waxtu nekk damaa bëgg saa yi ni ma yëkkati mbubb di la ko jox nga di ko sol ba tax na Mbàkke loolu xam nañ la ci ñun na ñu ngi la ci sant bu a a baax ñu ngi la ci sant bu baax di ñaanal yàlla maa ngi ñaan yàlla suñu borom yàggal fi suñuy wajur muy sama ndey ak sama baay ak mbooleem ku sa wajur nekk ci kaw suuf di ñaanal ñu way dawli yi nga xam si ñooñu jiitu yàlla yàlla woyofal suñu seen kaw te taas suñu seen barke barke Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi koy ñaan yàlla ci màggam nga tedd ngam nga barke alxuraanu karim mboolem ñi nga xam dañoo ne ci loxoy yoon yàlla na suñu borom bi subhaanahu wa taala jël leen fa ci jàmm ak salaam bañ delluwaat seen i kër tam ànd ak jàmm ci barke alxuraanu karim mboolem ñi na yàlla fëgg seen bopp ñu ci jàmm ci màggu alxuraanu karim yàlla na nu yàlla doole musal te aar ñu te sàmm te làq ñu fu ak yàq jëmul ci barke Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul te lépp ànd ak maa ngi koy ñaan yàlla ci mbooleem mayam yu màgg yooyee mu ne ñaan leen moo may leen dani baalu leen moo baal leen ngeen ñaan moo may leen ngeen sant ma dul leen xéewalam yu tedd yu màgg yi nga xam ne sàkku lu dul ngir ñun jàmm yàlla suñu borom bi maa ngi la ciy laaj di ci laajal mbooleem kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah nga sotti sa xéewal yi ci jaam yi sa jaami bopp yi muy xéewal yoo xam ne ànd ak jàmm ak mucc ak fekke ku tal maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala ci barket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 ak euh, ñoom suñu saal ayib ak mbokk taalibe bi yëpp ñoo koy ànde ba fi mu ne nii mu Moustapha Gueye sax yàlla def na tawféex am na gétt yoo xam ne jot naa daje ba ma nga ci moom ñu di ko saytu ngir fas yéene jëmi lépp ci màggal gi bëgg nañ daal màggal gu ren gi li ko tàmbalee ci première safar bi ci kàttanu yàlla ba ci bisu màggal gi bis bu yàlla sàkk danañ woote bis euh, ci réew mi mbooleem euh, mbooleem foo xam daan nañ fa jaare danañ fa tourné def ay safar yoo xam dañ koy amal mboolem ci biir Dakar ak euh, ak région yëpp rek ci kàttanu yàlla waaw moom daal fas yéene nañoo génne ci lim ci lim ci ay nag lim mi takku yoo xam si bis bu set ba ba ñuy egg ci bis bu mag ba noonu lañ koy ànde ba màggal gi jàll ci kàttanu yàlla incha allah mawlana yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm danañ ko ànde nag ak kuréel yi nga xam ne maa taxawal yëpp muy mouvement njëriñu réew mi ko it ndeysaan ak jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi ak euh, mbooleem ànd liggéeyal seen Touba yi nga xam si ni te kilifa yi tëdd yëpp ma maa sa daje fa eh, ci njiitul sama jëmm ju xeeb ji ju xeebu ji noonu daal lañ ko fas yéene ànd maa ngi sant nag sama wëllëre yëpp nag di sant kilifa yëpp di sant ñëpp di ñaan gouvernement bi ak yàlla gën fay ci barkeel Alxuraan Karim sama wëllëre yi ca France ña ca Espagne ña ca Italie ña ca Belgique Allemagne Angleterre fu ci waay nekk rek Dubaï. sama xarit yi ci Arabie Saoudite ñëpp maa ngi leen sant sama wëlëri yu tëddee ci Amérique it maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax am naa fa sama wëlëri yoo xam ne doxin bu rafet ànd bu rafet bu yiw bu kawe la ñuy ànd ak man ciy jëf te bëgguñu mukk ma tudd seen tur ba tax na maa ngi leen di sant bu baax a baax ñoom ku ci ni jàkk sama jëmm ji rek xam ni kàddu gi ma yëkkat ak wax gi ma sa jëmm ji ma di ko waaye amoon naa yéene saa yi ne may tudd seen tur nag ndaxte lu baax moom sëriñ bi danaa wax ne nañ ko weer ndax moo ko mbóotayam waaye nag lépp sant yàlla rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Sunugal 24 point l'information à sa juste valeur, c'est ici même